noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante tey ci julli la aju julli mel ni mii nga xam ne moom lañu xam miin waaye nag fan yii nga xam ne ci lañu nekk dafa am sag boo xam ne bu doon jëmm ju mën a dox wóor na nu ne dana sigréwu ba ñëpp yëg ne sigréwu na julli moom nga xam ne euh, waroom xam-xam yépp juboo nañ ci ne ab taxawaayam ci diine mu ngi mel ne bopp ci jëmm jiy dund dangay dégg sax kuy wax ak moroomam téléphone naa ko maa ngi lay ziyaara di la jox sa wàccuwaay waaye ab julli ci diine mi ngi mel ne bopp ci aw yaram yaram lu mën a doon nag bu fekkee ma nga ak bopp mu sax ay nopp yor ay gët ku ne xam na ni bis ko ca gaañee sax jëmm ja da say àndaale loof julli moomu nga xam ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sog jot ndigalul woo nit ñi moom la ko jëkk a jox ci ak jaamu yàlla ak nu ñu koy defee waaye mooy li bi mujj a wax ci aw làmmiñam génn àdduna kon lu ko ñor la asalaatu waaye buñ jógee àdduna ñun ñëpp ba demit moom la yàlla jëkk seet su baaxee lépp baax su melee neneen nag la ca des lépp dañu koy seet benn par benn loolu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, l'islam nag euh, soññee ca soññee boo xam ne dafa mel ne dafa am lum gàll ci soññee ga ne julli kët mooy diine diine nag bokk yi fu nit dugg mu ànd fa ak moom dugg diine fu nit dugg daa day ànd ak moom dugg fa amul fu mu koy xaar moo xam mu nekk ci këram ci dëkk bi mu dëkk wala mu nekk ci tukki amul fenn fu mu koy wàcce li fekk mi ngi doon nit di dox di dem daal te di ko man du ko wàcc bu dee ki demut dikkuti te dem ba ne làcc mënatul dara tëdd ci lal du tee bu waxtu julli jotee lislaam ne ko julli jot na mu defe ko nam ko mane moom la alxuraan di wax ne bu ngeen demee ba dugub tukki dugg ca la ngeen di dugg suñ leen mayut ngeen julli ca daaba ja may leen ñu ñuy julli ñu ne dañoo yàkkamte ñëpp bañ wàcc leen na ko jar su dee fu ngeen mënta wàcc ngeen julli jëm fa daaba ja jëm rek waaye doone naa xaar ba wàcc déedéet duñ la ko may dem na bay leeral sax ci alxuraan daanaka mooy genn julli gum leeral ci alxuraan nu ñu koy jullee muy bu ñu demee ba cëgg desatut ci guy ñi ngi ci ab xare ñëpp yori gànnaay du taxam wàcc leen de xanaa kuñ dóor bal mu ne këpp faatu waaye wax na nañuy jullee am na nu ñuy jule bu ab xare amee ba ñëpp yori fetal dañuy tànn imaam ci biir ñuy xarekat yi mu def kuréel bi ñaari xaaj wa ida kunta fihim fa aqamta lahum alsalata faltaqum taifatun minhum maaka walyaxudu aslixatahum fa ida sajadu falyakunu min waraikum waltati taifatun uxra lam yusallu falyusallu maaka walyaxudu ba aaya ba àgg ñaari xaaj xaaj bii dañuy ñëw taxaw su boobaa ñaari rakk lañuy ñuy jullee ndax fitna ji ñu nekk ñaari rakk su imam jiitee mbooloo mii <clears throat> benn rakka danaan tekk moom taxaw ñii ku ne àggaleel moroomam boppam ku ne àggaleel boppam beneen rakkaam dem ña taxawoon yor gànnaay yi ñëw taxaw fii ñu taxawoon ñoom imam àggale ñoom benn rakkaam am ñaar ñoom ñooy ku ne àggale seen benn ñu dellu ci xare ba xanaa mënoon nañ ne dañoo ne ci fitna taluñu ko waaye du tax mu jéggal la am njàpp du tax mu jéggal la am tiim moom dong la alxuraan détaillé ci nu ñuy jullee kon julli bokk yi lu rëy la léegi nag ñuy dox ba àgg ci jamono joo xam ne euh, alxuraan a ngi fi waaye dañ ko bëgg a fàtte wala xóotaluñ ca seenu gëstu euh, fi ma dogalekat bi dogalee woon léegi mooy illa man taaba wa amana wa amila saalihan fa ulaika yadxuluna aljannata wala yuzlamuna shay'an waaye dogalekat bi léeg day dogale nga wax jaral ko lu nekk yàlla noonu yàlla musal sëñ bi nga xam ne moom lañ taseel xam ne xiilaa xaala dana bari ay bu jamono yàggee mu wax digganteem ak ñi ànd ak moom bu julli jotee nu ñuy def wa xaafidan ala salaati annaha yow mii wax ne man nga àndal déglul na nga sàmmoonte sa digganteeg julli ba jox ko xaqam jam war a am ci yow yépp ndax kat jaamu yàlla gu nit war gu nit di wër bëgg caa dem di ca jaamu yàlla jullee ko gën ci moom kon waxuma la nga di ko deflee waaye nañ ko saxal bul bàyyi waxtu julli mukk muy dem te julli woo bokk yi nag jamonoy doxati ba àgg ci alal bari lu nekk bari waaye am ñoo xam ne seen alal buñ ko wutee ba mu bari doyewuñ ko dara lu dul xeexe ko ak sunu borom subhanahu wa taala te kat yor alal di ko xeexe ak yàlla ak tooñ mënu koo weesu tooñ gi benn bokk na ca def nga li ñuy wax violation de domicile ku bëgg a xeex ak yàlla na génn suufam si ak asamaanam si wut fum taxaw door a jàkkaarloo ko li tax ñu di ci fàttalante song yi song diine dafa bari lool moom la waykat ba doon wax ba ñu ko singalee ba singale ko fu mu génn ñu ne ma di ko joxañ te xamut lu mu def walaw kaana sahman waxidan la taqaytuhu walakinahu sahmun wa thaanin wa thaalithu su doon genn fitt képp lañ ma sànni ma moytu ko jëmuma sant yàlla lay def waaye foo xool gis bali fettee jóge fa jëm si ci yow war ngaa jóg nag bokk yi benn liggéeyukaay ngi nii ci ndakaaru di jaay ay garab daa dàq ñaar ñoo xam ne seeni tur ñu ko waxee ba wutul ab dënd dana rëcc waaye gis nga bokk yi ñaar ñooñu dañoo delloosi lu yàgg loo xam ne mas naa am ci jamono ëpp na téeméeri at mu ngi xewoon 1895 ñaar ñooñu fa ñuy liggéeyee ci pharmacie boobu pharmacie la moo ne bi gëstu amee xam nañ ne ñoom ay xamkati garab lañ ndax ay docteur lañ en médecine waaye nag kooko yàlla dafa ko jay yàkkal ko yàkk bu doon mu dem ba bew mbewte dong la mën a tudd ndax suuf soo xam dañ la fa dalal yàlla la fa xëj jëkk dalal moom ko nga dem ba ne mënumaa liggéey fii naa dem ci seneen suufu yàlla ñooña dalal la amul fu kenn moomul amul fenn foo xam ne kenn moomu ko ñu dalal ko muy dem ba ne bu fi kenn jaamoot yàlla loolu moom moog yàlla la waaye li ñu tax di wax mooy ña nga xam ne ñoom teraanga daa nekk ci seen kanam yàlla nekk seen kanam ñu bàyyee fa teraanga ja dem ca yàlla docteur Jum ak docteur jaa daam jaa daam am na lu muy fàttali nañu docteur Dioum Ahmadou Bamba la ñu ne ko boo ñu fee bëggee teree julli ñu bàyyi la sab liggéey sa dem mu ne kon dem leen ñu bàyyi fa liggéey ba dund nañ ayab alxuraan bi nga xam ne bi yàlla di santaane jullit ak jiw la jëfandikoo tudd na ca jaay ak jënd kon alxuraan jamono jépp lay àtte ya ayuha alladina amanu ida nuudiya lilsalaati min yowmi aljumuati fasaw ila dikrillahi wa daru lbaya baya yàqu saa bu ngeen déedéetee ak noddu yéemu ci ajjuma kese ni ngeen fi ne ñukk la ngeen doon yëngu rawatina jaay ak jënd nag te lu ngeen jaayoon ci diggante boobu yi ndax naan ma àggale na ngeen ko firi xàcc ko njëgg baaxul bu ngeen ko lekkee du baax zalikum xayrun lakum liggéey baax na lool waaye léexu gën nag in kuntum taalamuun waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nit ñi moom bu teraanga teewee yàlla teew léeg-léeg ñu ne fa ñukk yàlla ku ne fa ñukk yàlla fu mu jëm day wër ba sonn waaye du ko am wa ida raaw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qaima qul ma inda allahi xayru min allah wa min altijara foofu tudd na fi jaay ak jënd moo ne fitt yi may wax de du benn boobu rek am na benn jàngukaay bu ñu wax institut boo xam ne tubaab yee ko moom muy jàngale business mi ngi Sénégal de moom it nee na bu fa kenn julleeti business nag bu ca diine amut wàll business lay xaar la cee topp topp ca waaye ñooñu dañoo jàng maa inda allahi xayru min allahi wa min attijaara wallahu xayru raziqin seen wërsëg du fa joxe jeex ndax yàlla moo ne woon maa indallah maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaqin lu ngeen yor lu bari bari day mujj jeex la yàlla rek moo dul jeex te ñi nga xam ne dañu fa bàyyi liy jeex jëm ca yàlla yàlla dafa mel ni ku giñ laata muy wax seen mbir ëllëg wala yajziyanna alladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu yaamaluun dana tegaat ci seen loxo lu gën fuuf fañ nekkoon léegi nag ñi nga xam ne ñoom dañoo am alal beew bëgg a jàkkaarloog suñu borom ñoom it yàlla waxoon nañu seen mbir ba loolu duñu bet kañ lay doon rek la waaye du ñu bett inna alladina kafaru yunfiquuna amwaalahum li am an sabilillah fa sa yunfiquunaha thumma takunu alayhim xasratan thumma yuxlabuun dañuy dajale alal ndekete yoo buñ demee ba jekk dañuy déclarer yàlla guerre waaye nee na duñ ci mës a am ndam mukk des na leen yeew jéng leen jatan leen mbaq leen ñu dugg sawar soo gisee rëgg-rëgg ji am nag yàlla nee na li yamiza allahu alxabisa min at-tayyib li tax ñoo ñu di jaar ci seeni yoxoo la koy waral mooy yàlla daa bëgg a ràññale nii takk der yi def bu guddee loo mën a wax ñu dugg la ci oto bi suñ demee tànn ña ñuy seet loolu rek la li yamiza li yamiza allahu alxabisa min altayib wa yajal alxabisa baadahu ala baadin fa yarkum fa yarkumahu jamian fa yajalahu fi jahannama ulaika hum alxaasiruun ndekete alal ju bari jéeg siiw géeg lépp yàlla daf cay dugal ay jullit nattu seen pas-pas tànn ña ci gën teg ne ña ca des bokk ci ñi ñuy yóbbu ca ëllëg fu kenn bëggut a dem ñooñu nag yàlla nee na suñ delloo suñ delloo gannaaw ne lañ defoon rëccu nañ ko dutuñ ndax kenn duñ tere ko fi julli mën nañ leen a jéggal waaye suñ nangu wut a jéggul nañ nañ ko jëflante ak ñoom fu mu yam rek baax qul lillazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in yaudu faqad madat sunnatu l awalin wa qaatiluhum xatta la takuna fitna ndax loolu li muy jubale nit ñi ku fi julleeti ñu dàq la nga bañ ñu dàq la day mujj sa pas-pas tàmbalee yànq ndax suñu la bàyyee julli moom yéegi des tax taxul ñuy wax moom wa yakunu diinu kulluhu lillah fa in intahu fa inna allaha bima yaamaluuna basir kon ñooña ñu mat a tatagal lañ ñu mat a gàttandu lañ ñu mat a teertu lañ ñu jàppale lañ nañ leen leen jàppalee nag mooy ñi nga xam ne yàlla jox na leen alal yakkal leen te ñu ay jullit yoo xam ne seen xool yaa ngay dund nañ fexe ba ñaar ñi moom kenn ku nekk am sa pharmacie bopp boo xam ne yaa koy moom kuy liggéeyal yàlla laa wax nag te yàlla ñor ko mënees naa liggéeyal yàlla ci ñoom ndax dañoo bàyyi lépp te yàlla rek tax ne leen yàlla fay te demaguñ alaxira ne leen yàlla fay te buñ te buñ demagoon alaxira loolu sosu jullit yëpp la nañ fexe ba ku ne am pharmacie bu ba ko gënal ñu wéy moom wóor na ma ne bu ñu ko amee danañ fa tabax jàkk waxuma la tari ko fa jël waaye danañ fa tabax jàkk ñoom kon mbokk ñiy def te yàlla tax te yaakaar ne mu wóor leen ne bu ëllëg yàlla dana leen fay ñaar ñaa ngi noonu ay ca waaye bala ñu see àgg ñi am ay pharmacie ñoom ne ka tey ay jullit nañ fexe ba ñooñee tàmbalee liggéey moom fa saasa la ca dolliku nag mooy foofee ñu doon liggéeyee moom nañ xam ne ku fa jëmati di fa yóbbu sa alalit yaa ngi cotiser ci koy xeex suñu borom subhanahu wa taala soo ko yëgee ak soo ko yëgut te it ay garabam mat naa teey ay garabam it mat naa teey loolu moom ne ko ñëpp xam li fekk wëññi ko nañ ko ko fa bàyyil am na ku ko defoon fii fi Mbàkke Bawol bi sëñ Blaay tere yi mu doon tere mu ne moom fi nekk ab commune la tudd ab commune xaaral nit ñaa fa dëkk lànk na lu suñu daal waxoon nañ ko fa bàyyil mburu ma may jaay moom nu mu def wàññi ko ñëwaat si mu ne ko tuub naa loolu na dellu si waat kooka jullit yépp la tooñ la ko tàmbalee fa gën a sori ak fa gën a sori ci penk ba ci sowu ak bëj saalum ak gànnaar xam naa ne bu doon réew yi nga xam ne jullit yaa ngay dund seenub jullit moom waxatuñ ko dana tëj bisub karoog ndax kenn dutu fa dugg di jënd garab ndax na leen wóor na jullit bu fa dugg jënd garab moom yaa ngi cotisé ci kuy xeex suñu borom subhanahu wa taala su ko defee ñoo ngi nag fañ dëkk dëkk bañ dëkk itam yelloo na bu ñuy dellu jëm ci seen dëkk ba ñu jàppale ñu jóge ci jihaad juñ juñ gañe teertu leen teertu bu xumb ñañ war a gisal ñëpp ñu gis leen te ku leen gis na leen jox dara ana liñ fuur li mooy laan kañ ne woon doo julli ci ndox mi doo julli ci gaal gi ndax boo ko defee ñoo ko moom mu cëppale ci ndox mi lu ko ko doon fekk yoonam nekku ca woon waaye faat waxtu suñu borom mi jaral na ko bakkanam ñoom it faat waxtu suñu boroom jaral na leen ñàkk seen alal ak seenub liggéey jar na ko lu fi waay bari bari alal moo xam lu mën a liggéeyee ana fu muy mujj dara du ko topp alal du ko topp ay morso yu néew koy topp ñu sóol ko sax yi lekk ko mu jeex kon boog ñooñu di docteur Ahmadou Bamba jum ak docteur Dame Dia ñoom ñaa ñu seen tur yooyu wax ju baree nga ci ñu mat a taxaw lañ koo xam ne yàlla dong ngay liggéeyal te yàlla tax ñooñu moom na leen ñëpp ñee na leen pharmacien yëpp ñee ku ku leen jox sa dërëm moom mel na ni danga dugg ca ba Seydina Ousmane di financé xare ba dara wutalewu leen moom ñeneen ñi nga xam ne àgguñ foofu it nañ xaar seen wàll xam ne fu waay di liggéeyee mën na la faa dal na la ko jaral te fu dalal nit it na leen fa jullit yi bàyyi na yàkk bu faro bañ a amata ci ñoom soxla jàngkaay boobu ñuy jàngale nit ñi nag business loolu tudd jàngale ñàngal la tudd ndax bu fi kenn julli moom te nga ne ci réew moo xam ne ñëpp ay jullit lañ moom it ku ca demagutoon na bàyyi te xam ne bu fa yàggee tuuti ndax seenum njàng nii la mel naa la mel it fañ jëm ak kër dong fa la ñuy jëm ak moom fexe ba seen pas-pas wàññiku di jeex di jeex ba jeex tàkk yàlla na yàlla di dimbale ci pexe seytaane te musalal nu boppam sunu boroom mi ngi wax ne ci fonk gum fonk julli euh, ba ne am na si ñoom nag ñooñ nag jamono dana dox ba yàgg ñu naan liggéey bee ko laaj nañ dem ba àgg dugg ci oto nañ dem ba àgg tudd naa oto léegi ñaan dañoo yàkkamti waaye bokk ko ku ci duggati ci oto bu waxtu jotee su nanguwuta taxaw nga julli ne ko wàcce ma fi sama paas yam fi lu ko ca fekk baax na waaye jàngukaay itam lu mu baax baax ak lu ko fonk fonk ginnaaw ne nañ bu fa kenn julli bu fa jullit yóbbu doomam moom su fa yóbbu doomam rek nangoon na nangoon na waa ji la muy wax pas-pasam tàmbali naa jeex te waajoo ji la may joxe nooy amee teraanga dong la teraanga joo xam ne antut pas-pasub jaamu yàlla nag doontu teraanga alkande la bëgg a tudd ñoom xam-xam bañ yor mooy bi sëñ bi doon wax naan fa kasratul ilmi bi gayri adabi jalibatun ilal ada wa taabi xam-xam bu ne gàññ bu anutaku nite kooka day sonn sonal nit ñi waaye alal ju ne gàññ it te bu anutaku nite day sonn sonal nit ñi te rawatina bu ko defee gànnaay bu mu bëggee xeex ak suñu borom subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla dafa dégg ak topp te mun seytaan te dëgëral suñuy pas-pas ma delluwaat ci ñaari pharmacie yooyu ñu dàq ngir dañ fa doon julli na leen ñëpp jàppale fenn fu ne nañu fa def kees lu way am def ko ca ñi nga xam ne mën nañoo xëy xëy tabax lu ne léng nañ arrêté sànc yëpp fexe ba ñoo ñooña am seeni pharmacie yi bopp ba noppi yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin